da nga tolof tolof. Mhm. ba ñu arrêté la. Mhm. mais ma gis nit ñi sotle la nattu bi. Mhm. ndax man lu rek laa mën a jàpp. ndax booba dafa mel ni yow rek lañu ñu arrêté. boo ubbi ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne Bébé Saloum nañ ko bàyyi. ba nga génnee it nga wax wax boo xamante ni daw dawloo na yaram yu bëree bëri ci bébé Diène. Mm-hmm. ma bëgg nga dellu siwaat ci parcours boobu tuuti xam naa ne moom la ñuy jeexale suñu émission waaw Père Max parcours boobu mm-hmm. natt la bu agsi woon mm-hmm. ci Baye bi natt la bu agsi woon ci jaam bi ñu dund ko ci fierté dund ko ci ngor parce que dem di tëdd loo defut yëgoo tinoo moom boo dee as gor du feeñ ci yow ah mu nekk loo xam ne yàqaluñu tam ci suñu carrière dara ndax ci suñu biir carrière la ñu dabee bi ñu fa demee jàngee nañ fa luy tax ñu gën a mun a prouver carrière bi mhm. ndax foofu université la dama fa jàngi ji woon ci li ma jàpp mhm. parce que li gars yi wax mhm. day bëri version yu bëri tele bu nekk da nga dañ la koy laaj Bébé Diène nag ak Kaaw Cissé ñoo tax ba tey ma jàppee sama bopp détenu père dama jàpp ni libre guma ba léegi. kon ñoom ñu ngi ci biir Bébé Diène ak. Kaaw Cissé samay naw lay mbër lañ. xaw ma bundu kër Bébé xaw ma bundu kër Kaaw Cissé. Mhm. waaye wutalewu ma leen ak Basiru mi topp ci man barke alxuraan. Mhm. damay am ci ñoom ma yërmande ba damay tiim lekk su nekkee lekk gu neex ma su may jooy dama ko tay ndax damay xam ne ñoom lekkuñu ko. Mhm. kon ñooñu boo ko dundeek ñoom parce que loo dundul mënoo ko xam. te te kaso dafa doy waar dafa doy day xeeb loos as gor. day wàññi maqaama day suul ba dañ lay xoolee beneen identification bu wuuteeg li nga def. te per sàcc yu mag yi ci réew mi kenn dàppu leen. raykatu nit yu mag yi ci dëkk bi kenn jàpp leen tekkatu dil mag yi ci dëkk bi jàpp leen. mais man dëgg ji may wax moo déranger ñeneen ñi ba pàkk bu nekk ñu ngi ma koy tegal. waaye nag ragaluma kaso ndax jàmbaar la lu ma dëgg di su dee dëgg ma yóbbu kaso. <laughs> dimanche bi jot mun naa faa dem amul problème. parce que euh, li tax leeral bi am solo. Mm-hmm. nit ñi dañ ne mbëri dañu yàkkamti ñàkk ko combat tax mu dugg du affaire phobie lañ doon wax. père Max Mbargane. Uh-huh. billaahi. Mm-hmm. wallaahi. Mm-hmm. wataalaahi parce que bugguma woon sax justifié wu. ak ma ñàkk samay bakkanu doom. bu dee phobie lañ ma jàppee li may wut ci àdduna yàlla bu ci yàlla def dara. père dañ maa tuumaal ba tuumaal ma ni sama jabar daa daw ak maletu xaalis xam nga boo gisee ma mujjeeku léeg-léeg jiiñ la loo deful arrêté la ci ndax kaso du ku def rek fay dem nattu la àdduna lépp sotti na ndax daa daa am nañ am na période boo xam ne buñ ci tolloo ki la yàlla di bind ñi ñi war a am wërsëg ñi war a am nattu ak ñi war a am faatu ñi war a faatu ba am nit yàlla xam ne buñ tollee ci bés bërëb bés saasoo sax dañ koy woor kon destin la nattu la mënta ñàkk mais nag ku laalul weddi du ragal dindi tuuma la taxaw leeral ko ba àdduna yëpp xam ne lii amul te même bu amoon sax nit mën naa juum du tax ñu rejeté la foofu message bi may jàllale mooy ñi am ay mbokk ñu arrêté leen te ñu te ñu def bu ñu leen bàyyi suñu leen bàyyi ñu ngi leen di sànq day tax ñu continuer ci naka sadul noonu mais nit bu defee nga dem taxawu ko dana tax même bu defee bu génn bu jógee ci loolu dootu def. gis nga justice su Sénégal père. Mhm. am na solo trop. mais gis nga feeg bàyyiwuñ jàpp nit doo ko seeti lu mu defi. Mhm. dinañ dëkk ci euh, nit ak. ndax dinañ tëj nit ay at relaxé ko. Mhm. dinañ tëj nit ay at jox ko non lieu ndax lan da koo tëj ba pare doo ko xooli lu mu def. man lu ne bindal nañ ma ko man tey bu ma génnoon su ma neexee damay porter plainte de faire diffamation ndax nag ñu ñi ma juumloo ci sama affaire dañoo bari lu soleil bu ne lu ne lañ bind sama soleil bi lu ne barke alxuraan te liñ ma bindal dara amu ci ñañ ma booleel dugal tuumaal ma ak li am nii la def liñ ma liñ ma liñ waxal sax naa muy ay faux billets yooyu nii la demee man ki ma entamé mooy commandant bi intermédiaire ci luñ doon jaayante lam na doon woo du ma toog sax ci télé di justifié wu day niru leneen. li ma fa avant àgg yow sama sama egg ak nit mais bu dee foo faux billet lañ ma jàppee père man tëdd naa talaw taw di taw sama kaw ba sëbet xaw ma fu ma dëkk. waaw sama der du bënn du foofu. père mel naa li nit ñi mel am mm-hmm. naaw fit. Mm-hmm. père mais am na lu may jombale sama bopp ndax suma wajuru sell wa. waaw jomb jomb dafa am solo. père aw ma lu may ragal waaye am naa lu may jomb. waaw waaw ba muy metti ma sama bopp dara. Mm-hmm. jaayuma sama ngor. dinaa dem ba Serigne Touba dimbali ma réew mu mër bëgga dem ma bu mën faa dem. àdduna xam ma may jaay sama ngor ci lu ñàkk fayda ndax ndax loolu xel nangu na ko waaye sénégalais li may wax journaliste yi nañ bàyyi rey nit muy dund te as gor boo ko tuumaalee rey nga ko. waaye yaaw jaal dañ ko arrêté wul dëgguma la mais fan yële tudd nañ lu mel noonu bari arrêté nañ ko euh, ci groupe ñu àndoon ak ñuy def agr ñuy agressé ba mu ngi ñuy arrêté. ma toogam yàgg ñu ma benn doomu Paa Yéeri moo ma woo Sitaal Paa Yéeri Jaxate mm-hmm. barki démb sax demoon naa fa seeti leen. Euh, ndax ba léegi bat maa ngi feddali kaloore googu. Sitaal moom woo ne ma grand ma ne naa mu ne ma yaaw jaal lu ko dal. ma ne ko non dara dalu ko mu ne ma yaaw jaal dégg naa ànd groupe yu doon agressé ba mi ngi arrêté. ma ne ko bay ma tuuti yaaw bokk na ci mbër yi ma gën a yab moom daf maa yab sax. fu ma fekk dafa may poñe sànni ma kurpeñ naan ma duma sa morom ak xaaral ma woo ko ma woo yaa ne ko yaaw na nga def mu ne sa waa mu ne ko li ma lay dëggal mu ne ma père ñu may woo fu ne mais dara amu ci ma woowaat sitaan ne ko loolu amul kon moo lay wan ne yu mel noonu euh, bëri nañu tuumaal koo xam ne deful du ma ne nag du ma ne ñëpp defuñu am nañu def mais man na ma jàppee mooy même ki def bu ko ay mbokkam abandonné loolu day tax mu continuer nit yàgg naa def te mujj doon ab sang waaw. père est-ce que xam nga ni kaso. Mhm. Mhm. bokkoon na ci lu ma gën a ragal suma àdduna. Mhm. ba tax ma doon mooy yoo tooñ. waaw waaye bokkatul ragal ci sama àdduna fi mu toll nii. kaso day yàq nit dañ day defar nit gawuma loolu. kaso day yàq nit père. ndax di fa xamee loo warta xam. di nga fa gisee loo warta gis di nga fa sañee loo warta sañ beneen bi mooy téye nit ba yàqal ko àdduna mooy bu génnee yaa ko bëgg dugal euh, ci régime bu bon bi bu génnee ay moroom yëpp raw ko mu làmb dooleem dese ko bu def ñaaw teef lay gis denc nit mënut a ñàkk mais lu ñuy dencee nit nañ koy xool ba mu leer quoi dama koy ñaan nag awma xam-xam jànguma teguma ko ci lu dul waxtaane ko rek mais dama ni kaso la fa nekk lépp dafa doy waar te man yàlla dafa ma dimbali duma ragalu kenn mm-hmm. mais bëri na ay ayib daal mm-hmm. ndax gis nga téeméeri nit mm-hmm. nga bëgg leen a denc ci benn néeg boo nee problème amu fa mooy yaa ngi nax nit ñi ndax ku nekk ak jikkoom waaw loolu de gis naa ONG yi di ci waxtaan lu bëri bëri peer na ci kaso lépp waxuñu ko man ragalu ma kaso déedéet waaye ragal naa ñu ni ma yaa tooñ wala yaa def ndax damay setal sama sama soxna setal samay doom setal képp ku ma sopp ci lu bon ñaawteef ah non mun nañ maa jiiñ lu leen neex nag ndax dëgg ji may wax da leen derange dëgg na comme déranger maalikul mulk ngay jàkkaar lool moom mi bëgg dëgg ba ni xulun ak wala ukaana mu ron waxal dëgg donte dee dafa taxaw kon suñuy jéem a wax ak dëgg mais Sénégal boo waxee dëgg ñu woo la ne la dëgg ci sa tànk nga dëggu bay dëggal ñu dëggate la boo génnee sax wax dara benn kilifa lay woo na la ah génneel ci Max Mbargane yaa ngi dugg ci loxo pour kan pour lan. waa dogguma la ndax man gis naa bi may wax bi Covid bi ñëwee manaan naan bu état bi jógee ne l'heure grave xanaa ci ñoom la xanaa ci mbëri la grave ak acteur làmb ndax yow mi naan l'heure est grave weeru dee nga fayu am na ñu ne dama contre état. tey biir ubbee làmb mbëri di ci farlu ñu yóbbu yor seen njaboot da ngaa déggati ma wax ko. déedéet man politique ma mais nag dama leen a njabootee. da nga ñoo njabootee xam li ngeen bàyyi. Mm-hmm. ngir ter ci seen i waajur. dëgg la kon nag bu ci bu buñ ko laa buñ laalee secteur boobu danaa ci wax. AVC yi ngay gis kaso lay génne góor jigéen yi ngay gis kaso lay génne parce que taddin ba xat na mitti na. Oh. toogaay ba yàgg na. Mm-hmm. nerf sciatique yi fa lay jógee. parce que nga tëj nit. amul benn loo ko mën a apporter lu dul tëj tëjji tëj tëjji. benn temps bu ndaw la am ci biti tëjaat. tëdd ak toog rek la mën ak dancaloo. loo defee ni mënu faa xew da ngay wax nit ñi la neex. ñun buñ ñu nax nañ wax li fi neex. am na ñu ne maa ngi ñaan ci dooley sans borom. Mhm. bébé jéen ak Kaaw Cissé yàlla na sans borom doon seen wéttal ba ñu gaaw génn. Mhm. ndax mos naa leen wax ni mbër yu mag yëpp dama leen a mere. man mosuma jàll mbër bu dee mos naa ko wax tamit wala ma def ko nga nga génni ma ci waaye bébé jën a kaaw si tax na ma mere mbër yu mag yi ba koo ma ci laaj ci kombaam du ma ci wax ndax nag dama gisut ñu wax ci nuñ ci war a waxee donte mënuñ leen a génne far force na leen jaral bu kàddu yi Dakar naasee ñuy wax ak a ñaan parce que kenn ku ci nekk am na kilifa gu nekk sa wet te réew mi léegi loxo bu gudd fi dox da ngay rey nit ñu wooteel la ca kaw duñu la tëj nga jël téléphone bu jàmbur buy jar mille francs ñu tëj la ci deux ans ku ma mu am nday ak ku ma amul nday buy dox ci réew mi la ñu war a baax te boo waxee dëgg jooj ñu ne booy bi xaaral kéré benn boucan dugal la ci mhm. def la pass in bi yaay tëdd film yow man ñañ ma booleel problème ñoom moom seen problème ñu booleel ma sax man lañ def pass in te xaw ma leen xamuñu ma aw ma seen numéro amuñu sama numéro génn naa Malika sama bopp koñ moo waraloon ma def ci sama taalif bu rëy foofu bu rëy boobu noonu ma def non lii solo parce que père bi ñu may jàpp mm-hmm. maa ngi génnee sama kër mm-hmm. xontu samay xar ak samay xaj barke alxuraan mm-hmm. li ma lay wax nii musuma wax ci la li histoire bi waat mais. Mhm. dama naa ne bii mooy sama dernier wax ci sama problème boobu bii. waaw man boo gisee nag euh, ma woo la. Mhm. c'était juste daf ma marqué. Mhm. ndax beneen bi am na lu ñu seqi lépp rafet. dëgg la ma xam la sa cër. ma xam sa taalibe. ndeysaan moo tax man ba ma déggee loolu. ma ne ah loolu bu dee am na. juum na wala juumloo nañ ko. kon taxaw bi nee naa la weddi du ragal. dindi tuuma la. dëgg la te dafa am solo te it am na kàddu yi dëgg yoo xam ne bu jógee ci xol noo ci xol rek lay dellu. dëgg la moo tax loolu dafa am solo. Mm-hmm. moo tax nag mu njëkk ci yow yaay kan ak sa daxawaay ci làmb bañ xam ne kii fi toog champion la kii toog dara jomb ko ci làmb. Mm-hmm. ma doog a ñëw nag ci li nga xamante ni bëri ñoo xam bu ñu la wooyee rek dañuy jubali foofa direct noonu man man loolu moom a yitteel. dëgg la mm. sa jëmm. ak sa parcours. ak li nga def ci làmb ji ak yaa yaay kan. loolu intéressé la ndax ci loolu laa xam ci yaw dëgg la man fu ma toog. Mhm. damay jël sama borom doyloo ndax man sëñ Tuubaa rek laa gëm. dëgg la sëñ Abdul Karim Mbàkke sama wasila Cheikh Ibrahima doy. Mhm. am na lool des koy misaal waaye am na loolu làmmiñ du ko laal biñ may jàpp carax laa sol ak ay kilo. ku ne ci dil kay xanaa di nga waaj. Mhm. man bu ma waajee ni mbër di waajee ba génn. te fukki gendarme mënuñ maa téye. li ma lay wax yaa ma gën xam jaar nga ci mbër. kon dafa am lool ñun doxuñu ci ñun doxuñ ci lu lëndëm doxuñ ci lu jubadi mhm. sàccuñu fenuñu tuxuñu géezuñu naanuñu làmb lañ yaakaar esport lañ yaakaar sunu njaboot yaakaar ñu mhm. liñ yaakaar ñeneen yaakaar nañ ci ñun dara mhm. nan ñu sauver dimbali ñu boole ñu ci nit ñi boole ñu ci mbër ñu egg fi ñu war a egg en tant que yenn décision yi loolu jàpp naa ni natt bu agsi woon la dund naa ko tooñ nañ ma nag ba ci kanamu yàlla waaye jéggal naa ñëpp et puis na ma ñëpp jéggal li tax may jéggaluwaat ñëpp mooy am na ñu bëri maa leen juumloo. am ñu bari dal nañ am lu la metti woon ngir. këñ bëgg moom lañ ni moo def nangam ñu laay jéggalu. ñi nga xam ne ñëw ma yóbbee loolu waxal ma jëfal ma bal na ñëpp ngir jëmmi Serigne Touba. dëgg la topp ma kenn leen. Mhm. waaye lii ma la wax noonu la demee sama kër laa yéeg. xontu mhm. samay xar ba pare dem ci tali bi sama dooma yor sama téléphone maman Seye sama bundu kër. Mhm. ma eggee ci tali bi lan ma arrêté ni ma naa leen benn Serigne bu ñuy wax joru tudd tur man leen bu ngeen mënee seen liggéey dem leen ngeen doxal ko seen bopp man néew ma pour wan kenn ay sëriñ ñu jël ma yóbbu Kër Massar ñu laajaat ma ma jox leen numéro ñu bàyyi ma dem walla naa ma ki naa ma leen dem leen ngeen doxi seen loolu commandant bi ci boppam laaj ma ni ma doo wax nga ne man ko lu may wax ak ndax dama leen war a jox numéro jàmbur mhm. ñu tàppeel ma li leen neex boole ma ci dossier yi bi ma xëyee dégg ñu naan faux laajal Gris Bordeaux ma ñëwoon taxaw ma. moo mujj di ma calmer. xeetu saaga bu ne saaga naa leen ko ndax xam nañ ne dañ maa tooñ. Mhm. ndax bindal nañ ma loo xam ne. Mhm. fekkuñ dara sama loxo wallaahi azim. Mhm. ñañ ma jàppandool sax fekkuñ ci ñoom dara. ci ay faux billets. ñu dem ñu laaj leen ñooñu ne xamuñu ma te wallaahi noonu la demee xaw ma leen xamuñu ma mais comme dëgg ji. xam nga politiciens yi moom boo dee wax dëgg jëmale leen ko. Mm-hmm. waaw moom ñu def ay pexe. ni booy bi daf ñuy déranger. ñu am bët buñ la xool. Mm-hmm. merci beaucoup léegi nag bu ñu demee graisser commandant yi moo tax commandant yi su bëri ñu ngi yàq carrière doomu jàmbur yi. nañ ma baal ci ñi ma ko war a wax. Mm-hmm. ndax am na ñoo xam ne fulla rek la ñuy dox. mais am na ñoo xam dañuy dañuy jël corrompi. li tax du ma bëgg di débat ci lii damay dem ba si damay tàng damay. Ah, ah. directement Moussa Ka ji day ñëw ndax man sëtu Moussa Ka laa. ku dul sëñ Tuubaa doyuma mais dañ ma tooñ per mais baal naa ñëpp et di baalu ñëpp ndax nag su ma baalee ñëpp sama bopp laa baal su ma baaloo ñëpp it sama bopp laa baalu ndax ci biir Sénégal bi la da sañu maa toog ci der di jëw yàpp te ngan gu gu nga defaru ko wallaay dëgg la père yàlla na jàmm yàgg Sénégal dañ bàyyi tuumaalus gor suy dox gor su set wecci la uh-huh. gor su set wecci la ah, loolu am na solo jàngat bu toon a ñàkk kon appel bi nañu ko bàyyi xel nañ bàyyi xel euh, Kaaw Cissé ak bébé billaahi euh, Kaaw Cissé sax ndeysaan maa ngi romb keroog benn xale mu ne ma père del wax ci Kaaw ma ne ko maa ngi wax maa ngi wax ci bébé jën ndeysaan bébé Diène nag la ma waxoon rek ci laay dellu si waat dama kontaan lool ci waa kër écrit si mujjun bi ñoom kayre mm-hmm. ndax dama gis biñ ko arrêté ñu ne moment bi ñu ngi ne ci wetam di ko jàppale di ko éppale pour mu génn mm-hmm. su génnee nag ñu toog waxtaan ñu waxtaan ndax yëfi xale la rek mm-hmm. waaye moom champion la te làmb war na cee maanaam teraanga bu ne. Mhm. kon loolu dama dama dama koy rafetlu ndax man gis naa champion boo xamante ne nii mbërëm dafa am problème ci biir problème bi mu am la toog ci média bi ne dàq naa ko sama écurie. Mhm. te loolu man rafetlu ma ko bëgguma tudd tur. mais daal moment bi nga am ay jafe-jafe nga xam ne fa nga dugg ñu ci bitti bitti ñoo la war a taxaw pour génne la ah kooku nag damay bëgg ñu ndax na ci wet épaulé la euh, lu yan kàddu nga ciy wax. waaw li tax nga wax loolu mu koy dëggal mooy. Mhm. ki ne ci biir. Mhm. génn réew mi. Mhm. ba lu fi xew dañ la ko nettali boo ko dimbalee yàlla lay fay. dëgg la te ku ne ci kaso génn nga réew. waaw ndax lu fi xew dañ laa nettali. lépp lu bon dañ la koy tere doo gis jigéen doo gis xaalis xaalis bi la Père Max di dugalal sax. pour nga mën a am crédit ak loo lekk këyit lañ lay indil fiis mais doo ko teg bët. doguma la doguma la mais dafa am benn waaye bu ne ma ragaluma sax kaso. mais biñ génnee ba 6 heures jot. ñu ñu rang pour dem tëddi taman dama daan ci samay farata sama njaboot ëmb ma ma xool ba ñëpp tëdd ma doog tëj nee na booba nag jooy naa waaw. dëgg la man de kaso. Mhm. bi may dugg jooyu ma. Mhm. ñaari jooy laa jooy ci kaso. Mhm. wala ñett. te ñetteel bi damaa jooy tuubaat. mais ñaari maa ngi koy jooy ba tey. faralaguma rankoon yooyu. bi may tuub nag mooy bi sama jabar bi ñu ne ma am na doom mu fanaan doom ji dellu damaa jooy bu pare tuub ci suñu borom ma ne yàllaa ko indi moo ko delloo may jooy loolu xanaa dama fàtt ni Mouhamed lañ ma tuddee yàlla yow maa ngi lay jégal yow yàlla loolu waruma mm-hmm. mais yeneen ñaari ba tey maa ngi koy jooy benn bi mooy jour màggal ak la may sasoo waaw ma nekk kaso mm-hmm. ak ni ma mel ak sëñ Tuubaa fu ma fekk ci àdduna ma bàyyee ko fa ñëw mm-hmm. ma nekk biir Dakar te mënumaa dem Tuubaa ma defe ni fa lay yem ñu tagal ñu ceebu yàpp boo xam ne mu ngi noonu ngoon gi ñu jox ñu soom bi ma ne ah àddunaa ngi nii. waaw oh màggal bésu màggal mu metti ci man parce que. xam naa sama digg Sëñ Tuubaa ak màggal la may sasoo beneen bi bi ma joxee sama saak ma gàccaayo ko war a mu génnaale ñetti kàddu du jëm kaw. muy sama kàddu libre na waaye kàddu kaw si c'est kàddu bébé jën génnaale naa ko damaa jooy. ndax ma génn ngelaw li upp ma ma xam ne lu dul jàmm ko gën. Mm-hmm. ma ñeewante leen ñaari jooy yooyu laa jooy. Mm-hmm. ñetteel bi mooy bi ma la wax bi sama doom faatoo. Mm-hmm. sama ginnaaw ma jooy tuubaat. waaw à part bu dul loolu dara méttiwuma lu dul di ñaanal bébé Diène Kaaw Cissé ak détenu yi fan ne yëpp sana borom def ñu génn ak képp kuy njabootu détenu nañuy bàyyi détenu yi xel te xam ni li leen ci gaa yi di wax ak li am dafa wuute lekk ga doyu fa baaxu fa euh, kon nañ leen di defalal lekk di leen ko mhm. yóbbul mhm. di leen nemmi ko di leen jàppale waxuma ko pour dara nag dama koo wax ngir dama koo dund mhm. su ma ko dund loon du ma ko wax Thank you